أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sëriñ Fallou bu daara bu kokki ñu koy gërëm bu baax wax dëgg yàlla dama xawoon yéemu biñ ma waxee ndongo yi nekk ci daara kokki ak ba ma xamee lañuy ñuy sóor bés bu ne ci añ dafa kéemaane dafa kéemaane tu te dis la ko daara yi mën a attane donc il faut que nit ñi jàpp si indépendamment état ku yàlla may dara wërsëg da nga jàppale daara yi wala jàppale orphelinat yi su ko defee daf lay yokk rek parce que daara bu am plus de quatre mille élèves yu fay xëyee di ndekki di añ di reer kooku te état subventionné wu la donc solidarité mooy tax daara yi mën a taxaw donc solidarité boobu dañuy ñaan ñi ko tàmbali ñi koy def ñu gën ci farlu moo xam kokki ak ci yeneen daara yëpp faaw ñu yokk solidarité bi suñu biir pour que euh, mbir yi aussi mën a gën a yemb يا أيها إلى الله توبة نصوحا عسى